boole ñaari julli mooy julli gi julli ka ca des fa saasay saasa loolu mooy boole ñaari julli am na booleeg dëgg-dëgg booleeg dëgg-dëgg mooy am na ca julli goo xam ne gaaw nga ko julli te waxtoom jotut mbaa yeex nga koo julli ba muxtaaram jàll am na nag ak boole goo xam ne dañ koy tuddee jam xam suur yi yan maanaam boole goo xam ne melaw rek moo dig boole waaye ci dëgg-dëgg dug boole loola mooy ak julli jot nga bañ koo julli fa saasa yeexe ko ba ca mujj muxtaaram nga daal di waaj julli ko ba nga noppee julli ko sës ci moom jot nga far ko ci sësale loola melaw rek moo dig boole mel ne tisbaar jot nga bañ a jóg rek bàyyi bàyyi ba nga xam ne takkusaan yi bëgg a jot nga daal di gaaw julli tisbaar ca mujj bu waxtoom takkusaan jot nga daal ko ci sësale xam nga kon na ngaa julli tisbaar ci mujj muxtaaram julli takkusaan ci njëlbeenu muxtaaram nga xam ne kenn génn ci waxtoom loolu melaw rek moo dig boole kay tukki sañ na ko yow mi tukkiwul sax sañ nga ko la leen di wutale nag mooy kay tukki moom def ko ngir tukki ba tee ñu bindal ko tuyaaba yi ku teela na julli julli bu njëkk ga ci waxtoom yow nag bu fekkee tukki woo nga def ko da nga ñàkk tuyaaba yi ku teela na julli julli ku njëkk ga ca njëlbeenu waxtoom yaari julli ya bokkaale waxtu moom foo ko fekk day doon rek tisbaar ak takkusaan mbaa timis ak gee ñu ne su fekkee ne nekkul tukki kon tisbaar takkusaan bokkaal nañ ci waxtu lu tolloog loo mën a julli ñeenti ràkka bu fekkee nag da ngay tukki ñu bokkaale ci waxtu lu tolloog loo mën a jullee ñaari rakka ñu wuute ci ana fan lañ bokkee lu toll noonu am nañu ne fa muxtaarum tisbaar yam fa lañu ko bokkee nga xam ne kon soo demoon ba muxtaaru tisbaar des loo mën a jullee ñeenti rakk nga dal di julli takkusaan dana wér moom takkusaan ca ndax ci waxtoom nga ko julli am ñu nag ci njëlbeenu takkusaan lañ ko bokkee loolu mooy kon soo yeexe woon tisbaar bañ koo julli ba muxtaaram yépp jeex naka ñu dugg muxtaar takkusaan nga dal di gaaw julli tisbaar koy pam bakkaar ndax danga koo julli ci waxtu wañu bokk kon ja te bu njëkk moom dañ ne woon rek kuy tukki ci suuf si mooy saña boole yaari julli yu demee noonu waaye léegi nag moom bi avion yi xewee ak demukaay yi jaww ji boole nañ ci demukaay yi jaww ji nga xam ne su aéroport ba nekkee ca bit ci dëkk ba soo demee ba ca aéroport ba rek mën ngaa dal tàmbalee wàññi mën ngaa dal tàmbalee boole yaari julli waaye nag bu aéroport bi nekkee ci biir dëkk bi nga nekk ci aéroport ba doo mën a gën a wàññi ndax yow nekkagoo ci tukki yaa ngi ci dëkk bi nga dëkk li mu wax ak gun nag moom da koo gàttal lool ndax daa wax ne rek boo nekkee di tukki tisbaar jot jàppal ne fii mu ne tisbaar jot mook bu ne woon timis jot ñoo yemoo dong ndax tisbaar daa ànd ak takkusaan timis ànd ak gée te yaar yu ci nekk ñu leen di boole mu ne nag boo nekkoon ci tukki ba nga nekkee ci tukki ba nag tisbaar jot fekk la nga wàcc ci béréb loolu benn tomb la ak tisbaar jot fekk nga nekk ci yoon wi dem kooku tomb ñaareel la ñu wax nag ne bu fekkee da ngaa yéene wàcc gannaaw bu jant ba soyee kon da ngay boole yaari julli ya boole melo rek mooy yeex a julli gu jëkk gi ba ci mujj gu waxtoom nga julli ko gu ñaaral ga jot nga sësale ko ca loolu moom tomb bi ko moom mooy tomb ñaareel bi mooy ba tisbaar jotee daa fekk nga nekk ci yoon wa di dem mbaa ba timis jotee daa fekk nga nekk ci yoon wa di dem su fekkee da nga ne man day bala maa wàcc bu dee bëccëg bi nga ne bala maa wàcc jant bi daa so mbaa bu dee guddi ga nga ne bala maa wàcc fajar daa fenk li mu tekki mooy yow nar laa julli genn julli ci waxtoom loolu nag moom kenn kenn du la ko may kooku moom say boo nga boole rek booleeg melo gi la wax mooy julli gu jot mën nga koo yeexe ba ca mujj bu waxtoom nga julli ko nga sës ci moom daal di jot nga sësale ko ca ñu tegaloo rek nga xam ne kenn ku nekk ma nga ci waxtoom julli gu njëkk ga daa ñëw ci mujj bu waxtoom julli gu ñaaral gi ñëw ci njëlbéenu waxtoom waaye nag doo sañawee ca noona rek bañ a julli genn genn julli ci waxtoom bu fekkoon nag tomb bu njëkk ba la mooy ba tisbaar du jot mbaa ba timis du jot fekk la nga wàcc ci béréb nag te nga yéene nag boo xasee jógaat moom bala ngaa wàcc bu dee bëccëg bee jant bi day so ba noppi bu dee guddi gaa fajar day fenk ba noppi waaye xam nga tey daa fekk nga wàcc ci béréb moom daañu la may nga boole ñaari julli yëpp yëpp yëpp ni ki bu dee tisbaar ak takkusaan ba nga jullee tisbaar rek nga daal julli takkusaan sësale ca fas saasa wala ba nga jullee timis nga daal di jirgee sësale ca fas saasa loolu nag mooy boole dëgg-dëgg nga xam ne bu dee tisbaar takkusaan tisbaar rek a jotagul waaye takkusaan moom jotawut bu dee timis ak gee timis rek a jot waaye gee moom jotawut loolu mooy boole dëgg-dëgg da nga ko sañ foofa kon noonu la ko teqaleel nga dégg maanaam leeral nañ léegi ne la tisbaar takkusaan la ñuy boole mbaa timis ak gee waxtu wa tisbaar jot nag mbaa waxtu wa timis jot mu julli gu njëkk ga benn mu fekk la wàcc ci béréb mbaa mu fekk la nga yo- ci yoon yi ngay dox di dem yooyu da nga koy teqal na foofu njëkkeel bu njëkk bi mooy ba julli gu njëkk ga jotee te fekk la nga nekk ci béréb léegi tisbaar jot fekk la nga nekk ci béréb ci biir tukki bi xam yaa ngi wàcc ci béréb wala timis jot fekk la nga wàcc ci béréb jàppal ne julli bu njëkk moom faaw bala ngaa dem julli ko bu dee tisbaara bala ngaa dem faaw nga julli ko bu dee timisa faaw bala ngaa dem julli ko ndax ndega moom des nag bu ñaareel ga su fekkee ne da ngaa fas yéene boo xasee war bala ngaa wàcc julli ñaareel ga sax daroor yoom day jeex ni ki tisbaar jot na wàcc na ci béréb te da ngaa fas yéene boo waraatee bala ngaa wàcc timis jot xam nga su boobaa seen waxtu yëpp jeex mbaa timis jot na te da ngaa fas yéene boo xasee war moom bala ngaa wàccati fajar daa fenk loolu li muy tekki mooy seen waxtu yëpp day jeex foofu lañ lay mayee nga julli yaar yëpp benn yoon bu dee tisbaara mën ngaa julli tisbaar fi saasa tekki takkusaan daa leen di boole xam ne kon njëkk ngaa julli takkusaan te waxtoom jotut tisbaar rek la waxtoom jot bu dee timis ak gee mën ngaa daal julli timis teg ci gee fi saasa saasa su fekkee nar ngaa wàcce muxtaarum julli ñaar ga nag nit ki tisbaar jot na waaye fas nga yéene wàcc ci muxtaarum takkusaan kon doole sañ a boole ndax amoo ngànt ndegam xas nga yéene wàcc ci ci muxtaarum takkusaan rek da ngay bàyyi bu takkusaan jot nga wàcc julli ko mu des nag bu fekkee da ngaa bëgg a wàcc ci gannaaw bu muxtaarum takkusaan jeexee ba nga dugg ci daroor yu takkusaan su boobaa daañu la may ndegam takkusaan naroo ko julli mukk ci muxtaaram moom da nga ko nar a julli rek ci daroor yow daañu la may bu la neexee nga boole ko léegi léegi ak tisbaar xam ne kon da nga ko julli ci loo xam ne daroor yoom la ci kaw rek tukki bee la ko may daañu la may nga far ko julli léegi léegi boole koog tisbaar ndax ndegam da nga ko nar a julli ci daroor yoom rek tukki bi may na la lii muy daroor yi ci moom nga far ko boole tisbaar rek nopp lu benn yoon waaye la gën nag mooy nga bàyyi ba wàcc ci daroor yoom door koo julli ndax loolu mooy daroor yoom dëgg dëgg ci ci ta nga nar a wàcc itam boole ci bu doon timis noonu la léegi boo jullee timis te fas yéene wàcc ci muxtaarum gee balaa gee muxtaaram gee jeex kon doo jiital gee fi saas déedéet amoo ngànt da ngay bàyyi ba wàcc ci muxtaaram moom gee daal di koy julli ndax fas nga yéene wàcc ci muxtaaram su fekkee ngaa bëgg bala ngaa wàcc nag muxtaarum gee jeex nga dugg ci daroor yoom nag kon li muy tekki mooy nar laa julli yow nar laa julli gee ci muxtaaram da nga ko nar a julli daroor yu kese kon daañ la may fi saas nga boole ko timis rek julli waa jullee ndoo benn yoon nga xam ne lii nga ko jullee dañ koy tudde daroor yi woo xam ne tukki bee la may mu doon daroor yi nga mën sañ ko cee julli waaye la gën nag mooy nga bàyyi bu wàcc daroor yoom doo ko caa julli nag ndax loola mooy daroor yoom dëgg dëgg dëgg lii moom yaa tukki bee la ko may rek waaye ci dëgg dëgg du daroor yoom mu ñëw nag ci bu julli gu njëkk jotee fekk la nga nekk ci yoon wi dem kooku moom xéewali na fi mu toll nii mel ne tisbaar jot fekk yaa ngi ci yoon wi dem mbaa timis jot fekk yaa ngi ci yoon wi dem soo naree wàcc ci muxtaarum julli ñaareel gi kon na ngay dem ba wàcc ci muxtaarum julli ñaareel ga daal julli julli gu njëkk gi moom na nga fekk kon daroor yoom dugg bu ko defee ne julli ñaareel ga moom ngay julli ci muxtaaram mel yaa ngi ci yoon wi dem tisbaar jot na waaye fas nga yéene wàcc ci muxtaarum takkusaan daañu la may kon nga wéy rek noonu bañ a julli tisbaar ci muxtaaram xanaa dem ba ci daroor yi ba nga xam ne mooy daroor yoom ndax da ngaa bëgg a dugg ci muxtaarum takkusaan door a wàcc te xam nga muxtaarum takkusaan moom lépp daroor yu tisbaar la daañu la may nga wéy rek boo wàccee ñu ko julli tisbaar teg ca takkusaan xam ne kon tisbaar da nga koo julli ci daroor yoom takkusaan nga julli ko ci muxtaaram loolu da nga ko mën ba tey bu fekkee da ngaa bëgg a wàcc ci daroor yu julli ñaareel gi mooy tisbaar jot na yaa ngi ci yoon wi da ngaa fas yéene wàcc ci daroor yu takkusaan xam nga daroor yu takkusaan seen daroor yi la ñoom ñaar ñëpp foofu nag moo xéwale lool dañ lay may rek nga wéy noonu rek ba wàcc ci daroor yu takkusaan ba wàccee nag nga julli yaar yëpp daal julli tisbaar julli takkusaan xam ñoom ñëpp da nga leen julli ci daroor yi li la mënta may kay mooy bi nga nekkee ci yoon yi noonu nga ne ah man ka dama wéy rek ba jant bi fa ma door a wàcc xam ne kon nar laa julli kenn kenn ci ñoom ñaar du cee muxtaar mu ci daroor yi wa dañ lay wax ne ah ndegam noonu la kat kon say boo def jëm xam sóori yéen bee nga weesu woon maanaam boole goo xam ne day doon aw melo rek mooy say boo wéy nii ba tisbaar di bëgg a jeex nga wàcc gaaw julli ko ba nga noppee takkusaan jot nga sësali ko ca nga xam ne kon na ngaa dugal kee ci mujjug waxtoo muy tisbaar dugal kee ci njëlbeen waxtoo muy takkusaan rek waaw waaye moom duñ la may mukk nag moom noonu nga nekk ci yoon di wéy rek nga ne daay wéy ba yaari waxtu yëpp jeex tàkk ma door a wàcc duñ la ko may moom li tax nu wax ne boole googu xéewal la mooy bu fekkee da ngay tukki te yoroo sa warukaayu bopp borom warukaay bi nag na nga wut a taxaw nga julli léegi tisbaar jot te na nga wut a taxaw nga julli kon su la wóoree ne balaa muxtaarum takkusaani jeex da ngeen àgg fa ngeen jëm kon mën ngaa wéy rek noonu yoon may na la nga bañ a julli tisbaar ci muxtaaram dem ba ca muxtaarum takkusaan bi ngeen wàcc rek nga daal di julli yaar yëpp njëkk a julli tisbaar teg ci takkusaan bu doon timis ak gee it timis jot te borom oto bi nangu wut a taxaw ba am ngeen ci déggoo sax yéen ñi nekk ca oto ba man ngeen bañ julli timis ndegam nar ngeen a wàcc ci jamono ya gee di jot gannaaw gee jotee balaa muxtaaram a jeex man ngeen a wéy rek bu wàcc ca muxtaarum geem dal di boole timis ak gee xam ne kon da ngeen yéexi timis ba dara réewum dikk waaye du ca wàññi dara ba tey sax bu fekkoon ne ba muy tisbaar takkusaan xam nga ne oto bi dana àgg fu mu jëm dana fekk sax muxtaarum takkusaan jeex waaye ca daroor yi wa lay doon koy daañu la mañ nga wéy rek balaa jant baa soo boo wàccee nga daal di boole julli tisbaar takkusaan xam ñoom ñëpp ci yéen daroor yi la bu gën timis ak gee it bu leen neexee rek ngeen bañ a julli timis bañ a julli gee ndegam da ngeen a bëgg a wàcc ci gannaaw bu muxtaarum gee jeexee ba daroor yi wa dugg mën ngeen a bàyyi rek ba wàcc ci daroor yi wa mooy laata fajar di fenk rek ngeen wàcc yi ngeen daal di boole timis ak gee xam ne yaar yëpp da ngeen leen a julli ci seen daroor yi loolu nag xéewal la manees na koy jàpp bu baax li ma ta doolee leeral foofu rek mooy mën naa am nag yow mi nga xam ne yaay tukki jàppoo wenn waxtu woo xam ne te nga jàpp wàcc amut takk-takk daal ci waxtu sàngam bëgg naa caa wàcc ak waxtu sàngam naruma caa wàcc kooku nag moom da ngay boole booleeg melo gi la waxoon léegi mu julli gu jot ku ne sañ nga ko yéexe ba muxtaaram di bëgg a jeex nga gaaw waaj julli ko boo noppee nga sës ci moom noppi nga daal di gaaw julli ko mu sës ca loolu nag moom xéewal na lool moom itam te it lu jàppandi lool la mooy rek yaa ngi ci tukki bi ci sibaar jot na am nga sañ-sañu bañ koo julli fi saasa bàyyi bu waxtoom di bëgg a jeex nga wàcc julli ko takkusaan jot nga sësale ko ca man nga it timis jot nga bañ a wàcc fi saasa bàyyi ba gee jege nga daal di nga wàcc julli timis ci waxtoom gee itam jot nga far ko ci sësale
ba tey daañu maye ku boole timis ak gee bu fekkee ne ba timis jotee asamaan si day taw mbaa boog ne asamaan si mel daal ku ma saa def moom taw lay def taw kese boobu ci sotti mbaa ñu koy séentu daañu maye ñu boole timis ak gee julli timis dal cee teg gee fa saasa muy xéewal du ñu dem di ñëwaat di julli ci gee waaye dañuy sart laata ñuy tàmbalee julli timis taw bi tax ñu sañ a boole tàmbalee taw mbaa boog fekk asamaan si mel na nga xam ne bu ko masaa mel rek day taw waaye bu ñu xësoon tàmbali ba di julli timis mu door a tàmbalee taw duñ mën a boole timis ak gee ndax faaw lay tax ñuy boole day am njëkk ñuy tàmbali julli ga jëkk rawante nag ñu julli timis ba àggal mu door a tàmbalee taw ba asamaan si mel noo xam ne bu ko masaa mel daraan taw kon moom ba tey duñu sañ a boole
wala sax tawut asamaan si mënuwul di taw waaye yoon wi ñu aw jëm jàkka ji dafa lëndëm ba noppi am ban am ban boo xam ne day naqaree dox pare kon daañu maye ñu bool timis ak gee rek jullee doo leen benn yoon ñibbi benn yoon waaye nag lëndëmu kese nga xam ne yoon wi amu ban maanaam tawut mënuwul luy bëgg a taw yoon wi itam lëndëm na nii waaye nag awul ban kooku nag nee nañu lëndëmu kese kese moom du taxa sañ a boole mu des nag bu dee banub kese kese su fekkoon ne nag yoon bi lëndëmut waaye daa am ban boo xam ne booy jëkki rek muy sumisee daal di ñaqati kooku nañ am nañu ne sañes naa boole am ñu ne déedéet banub kese kat du taxa sañ a boole dama bu doon yaar yëpp moom ban ak lëndëm gi moom mook taw bi mbaa nuru yi taw ñëwee moom kon des na sañ a boole ba tey bu doon lëndëmu kese moom kenn sañ a boole waaye ba dee banub kese rek moo am ñaari wax ana la ñuy boole mooy nii li ñuy boole timis ak gee moom am na jàppale bu baax bu timis jotee dañ koy noddal nodd gu xumb dañ ko daan nodde rek naka jekk nga xam ne bu fekkee ne rajo am na nit ki suñ jamono dañ koy yëkkat ci rajo ba ñëpp di ko dégg su ko defee yéexe rut nag ndax mbooloo mi ku bëgg a bokk ci julli gi mën a ñëw fekke ci julli gi xam buñ ko yéexee tuuti daal di koy liqaamal daal di koy julli si noppeen daal di noddal gee te nodd ko nodd gu woyof bu fekkee rajo nekkoon na fa nañ bàyyi rajo ba te nodd ko ci biir jàkka ji nodd gu woyof rek bu fekkee dañ daa génn ci biti itam di ko yëkkati tey kenn du génn ci biti ci biir jàkka lañ nodde te wax ko ndànk ndax dañuy bañ ku julli woon timis defe ne ah man kat saa timis je boo demee daa jotoon mbaa mu defee ne gee dafa jot léegi fekk gee jotut waaye jàkka ji ñooy boole rek waaye jàkka ji ñooy boole rek timis ak gee kon nag noddu gee nañ koy nodd noddu ndànk rek ci biir jàkka ja su ko defee daal du gaaw nag julli gee daal di gaaw ñibbi balaa shafaqa fàddu mooy balaa muxtaarum geexe dugg ndax ndegam yoon da leen may ñu gaaw boole yaa yëpp ñibbindoo benn yoon bu ñuy yaxamtaloo far nag ba gee jote leen fa faaw ñu war a baamu geega waaw kon nag nañ gaaw boole timis ak gee mën a dem benn yoon balaa geex a jot waaye bu ñu yeexamtaloo ba gee jot rek ñu war a baamu geega nee na nag gee dañ koo teelu julli ci yooyu jamono boole kook timis rek ngir ngànt waaye waxtoom jotagu doon mais jamono nag kon doo defagul safaa wetar da ngay bàyyi ba waxtu gee jot dëgg dëgg nag nga door a def safaa wetar waaye jamono bul defagul safaa wetar